بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان بل السلام عليكم ورحمة الله بوك جلدي نون لين دي نوي تدين سيار دين بالو حق تدي كو ساكو تيين فسيني اند اك يين كي ديرو وير كور بي ييب سي ناتي لي كي غودي بو نيك ديكو سيكوندي كو نك كي تير سوري سوني بو مباكه بو تودو قرة العين دي نيان سون بروم مو ديفال ني توفيق ak ndimbal ban mën koo yeggalee nekk nga xam ne noonu lañ ko tàmbalee njëkk loolu nag ñuy sàkku ci yéen ñëpp képp koo xam ne abonné goo ci seen bii di seen YouTube Aynul Hayaat nga daal di gaaw daal ci abonné ndax naafile gudduwal nga mën cee jot ci waxtu ak mbooleem waxtaan yu am njariñ yi ñu fi def ci bëccëgu weeru koor wi yëpp ngeen mën cee jot kon naafila guddi gu njëkk gi nag fukki rakka la rakka bu ci ne fatiha benn yoon inna anzalnaahu ñaari yoon kaafiruuna ñaari yoon lixlaasu ñaari yoon sëriñ bi nee na naafila googu ku ko def yàlla dana ko xaraamal ci sawara te bu ñaanee aajoom yàlla dana ko faj jërë ngeen القدماء مد لي الواسع ما لم يسبقا له من المنى وتيبي عبقا ضيافتي إلى الجنان صافية ولذوي الهدى حروفي شافية